مثل الذين أقسوا على ثياب زين فيه لخطاب للإيام مثل الذين أقسوا على ثياب زين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى الدين bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu di leen ndokkeel ci weer wu tedd nu am mbégte ci jataayu waat ak mbokk yi ci jataayi taysiir al wasalli te bayitu tey sëriñ bi tàmbale ko ci wasalli bi taslimi yaa muhayminu ala alladi baada duaa yu hayminu tudd suñu borom woo di almuhaymin te ñëw ci alquran benn yoon ci mujjug suratul xasri wallahu alladi laa ilaha illa huwa almaliku alqudusu alsalaamu almuminu almuhaymin mu dikkaat feneen ci benn ay alxuraan waaye dikkewu fa tur yàlla dafa ñëwee sifa sifa alxuraan mi wa anzalna ilayka alkitaaba bilxaqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitaabi wa muhayminan alayhi ibnu jarir altabari ci tafsiru aaya boobu mu wax ci ni cosaanul haymana mooy wattu ak fuglu alxifdu wal irtiqaabu mooy cosaan li ci làkku arab nit ki saabu fugloo mbir wattu ko dañuy wax haymana fulaanun alayhi diw contrôlé na mbir mooy contrôle kon maanaam almuhaymin ci tur yàlla yi ci àq yàlla tabaraka wa ni ko ibnu jarir waxe ak ibnu kasir ak ñeneen ci mu fassiroone yi mooy fuglu muhaymin al muhaymin mooy aji fuglu aji contrôlé ibnu kasir day wax jële ci ibnu abbas ni ak ñeneen ñu dul ibnu abbas wax ne al muhaymin mooy kii seere mbindeef yi ci seeni jëf li muy tekki mooy moo leen di fuglu rek moo leen di contrôlé ni suñu borom waxee ne wallahu ala kulli shay'in shahid nga xam ni kon contrôle boobu mook shahaada benn lañ te mooy seere ko seere summa allahu shahidun ala ma yafalun kon buñ ne almuhaymin day tekki turu day tekkiwaat ci turu yàlla yi ni mooy mooy tolloog al aalimu bi kulli shay'in ndax kii tiim lépp di ko contrôler day xam ak xam lay teg ci moom kon baatu muhaymin amewaat na turu al alimu bi kulli shay kon mooy boroom xam-xam boo xam ni dara ump ko ci asamaan ak ci suuf lu toll ni zarra du ko ump ci asamaan ak ci soof moom al muhaymin maanaam lay amee waaye turu yàlla woowu di almuhaymin it amewaat maanaam albasir aji gis ndax ki seere jëfi mbindéef yi laaj na mu gis dañuy def xam seeni biir ak seeni biti kon almuhaymin dikkaat na ame maanaam albasir ni mu ame maanaam alalim bi kulli shay noonu la ame maanaam albasir mu baatu almuhaymin imaam xasaali day wax ni almuhaymin tur la boo xam ni kañ koy melale mooy ku dajale ñetti melo yii muy bëgg a wax ñetti melo yi ka ko dajale moom la ñuy wooye almuhaymin ba ci jëkk mooy xam mbir mbir yi mbir yi ci ci lëf mbir yi nag ci nga xam ko xam bu leer bu ñaareel ba mooy ginnaaw boo xamee mbir ya ba noppi nga am kàttanuk man koo may la koy jariñ ñaareel bi mooy nga am kàttanuk la koy jariñ nga mën ko koo fàggul ñetteel ba mooy fàggu googu nga koy fàggul li koy jariñ nga mën caa sax dàkk daal nit ñett yooyu ci yàlla képp la daje ndax nit mën naa xam mbiri nit mbaa bu xamul lépp yi dina bari lu mu ca xam ba man koo saytu it mën koo jàppale lu mel ni nit ku amul njaboot la muy xam ci ñoom ak lam leen di mën a fàggul waaye nag ba muy manqué mooy sax gi ndax nit day jeex kon yàlla rek moo yeyoo tudd almuhaymin ci dëgg-dëgg-dëgg ndax mooy ki nga xam ni dara ëmb ko yi mbir yi te lu ci yàlla lu ne mën na ko caa def te loolee mu ca def mën naa sax dàkk kon yàlla rek moo yeyoo doon almuhaymin noonu la imaam Xasali waxe ndax mooy yàlla mooy al awal di al axir bu ñëpp jeexee it moo fiy des loolu kon mooy tafsiru al ci ni ko borom xam-xam yi waxe mu des nag kon ñu jàng lan la ci e, jaam bi di jariñoo ci turu al muhaymin ginnaaw bu mu ko xamee ginnaaw xam ne yàlla mooy kiy contrôler lépp dara ump ko mu xam lépp di gis lépp di li ci jàmm bi war a jëkk jëkk jëkk jànge mooy muy fuglanteeg yàlla xam ne yàlla mi ngi fuglanteeg moom mooy mu di ko bàyyi xel xam ni yàlla mi ngi koy bàyyi xel ndax yonente bi ci xadiisu jibril boobu bi mu laajee lan mooy al islaam mu leeral ko ko mu laaj lan mooy al iman mu leeral ko ko bi mu laajee ko an taabuda allaha ka annaka waaye lam takun tarahu fa innahu yaraak léegi muraaxaba boobu yàlla xam ni mi ngi jàkkaarloo yow nga bàyyi xel loolu yi di di ko di ko di jëflante moom ci jëflante ni mi ngi nii toog di jàkkaarloo yow loolu mooy dëgg-dëgg kon al ihsaan moom la sëñ bi wax ni in lam takunu qad raaytumuhu fa huwa yaral kulla faraaqibuhu sëriñ bi dafa wax ni bu ngeen ko gisul na xam ne mi ngi leen di gis kon na ngeen di bàyyi xel ni mi ngi leen di gis ngeen di jëflante ak moom jëflante bi ni mi ngi jàkkaarloo ngeen di fóolante woo ci ñoom kon daraja bi gën a kawe ci tawxiid mooy nit ki di fukk lu yàlla ci lépp lu muy def looy def baa ngay ko bàyyi booy toog booy taxaw booy jàpp booy bàyyi looy def rek nga bàyyi xel yàlla mi ngi la ci gis te mi ngi lay contrôler te la ca wér ak la ca lépp xam na ko ngay bàyyi xel loolu kon loolu boo ko defee mooy daraja bi gën a kawe ci tawxiid diggante ak borom. waaye nit ki ginnaaw bu mu jëlee cërub di bàyyi xel yàlla ci lépp lu ni xam ne yàlla mu ngi jàkkaarloo moom mi ngi koy gis mu war a jariñoowaat ci tur yi nag contrôler jëmmi boppam rek ginnaaw bu mu contrôler yàlla di contrôler nte ak yàlla ba noppi muy contrôler boppam muy xolum boppam ak xelum boppam muy contrôler biiram ba xam ndax ndax lii muy def ci kaw ndax dëppoon ak biir bële de dëppoon ak la mu jàpp ci biir bële de buñ dëppoon mu seet nu mu ko dëppalee ndax nit ki jëfi kawam saa bu dëppoowut ak la ca biir rek kooku nifaaq lañ ko daan tudde naafiq boo fi nit ki war nañ contrôle du muy def yoon na xool boo xam ndax yàlla tax mu koy defal def wala taxul bu yàlla taxee fan la xam ne mu kon ni bu ko wóoree ne yàlla taxul mu soppi programme kon la ci jëkk ci lu nit ki war a jëriñuwaat mooy di contrôler sa bopp la dëng ci say mbir ci sa biir la ci doon ay dëng-dëng jëm koo jubanti sa kem kàttan waaye bokk na ci contrôler bopp nag ba tey bokk na ci ni ñuy jariñ ni ñuy war a mën a ni nit di war a mën a contrôler bopp muy déglu nit ñi lañuy wax ci moom moo xam ay soppe lañ wala ay noon lañ soppee lu baax rek la ñuy wax ci yow waaye nga xool ba xam la ñuy wax dëgg la dëgg bu dee dëgg nga jéem saxal melokaan woowu di ñaan yàlla mu saxalal la ko te nga way ci dem bu fekkee ni lu dëgg te muy melokaan bu baax nga jéem a fab melokaan bu baax boobu ñuy wax ci yow te nekkul ci yow nga jëf ko def sa bopp waaye noonu la nit ki war a jariñoo it waxee ay noonu muy occasion boo xam ñu bari ñu koy bàyyi ñu bari bu xasee ba doon noon jaax na te fekk noon bi kuñ mën a jariñoo la ndax la muy wax ci yow ginnaaw day xool rek luy sa ayib wala lépp luy luy luy doon lu ay yàqu-yàqu yi nekk ci yow mu jëm ko wax ngay bàyyi xel loolu boo xoolee ba gis ni mu wax dëgg la seet sa bopp seet noo ko sottee loolu bokk na ci contrôler sa bopp contrôler sa bopp doo ko defal sa bopp rek waaye leneen ñuy wax da nga koy leneen ñuy contrôler koy jël moom itam def ko mu doon xam-xam boo njëriñ bu dee ab soppe la mu wax ci yow ci lu baax boo xoolee ba gis ne wax na dëgg nga jéem mu sax di ñaan yàlla mu sax loolu dëgg dul dëgg nga jéem def ci sa bopp bu dee waxi noonu la noonu bi moom la muy lijjanti mooy non échec la wala muy lijjanti lu ñaaw lu mu xam ci yow pour wax ko bu ko xoolee ba xam ne ñii la mu wax ko la nga ci war a mën a jariñ yow mooy au lieu nga di ko ci mere nga dem wéetu si nga gànnaay xam ne wax ne dëgg nga jéem a sotti programme bi nga jëm ko def si biir boobu kon noonu lañuy ñuy jariñoo ci wax yi soppi yi ak noon yi tam dugg ci cadre bu contrôle sa bopp dañuy nett li jële ci Zeynul Abidin mu doon doomi Sayyidna Huseyn ñu wax dafa ñëw fekk mbooloo mu toog di ko jëw bu déglu ba xam ne moom la ñuy jëw wax ay jikko yu yoo xam dara tegu ci yoon mu ne lii ngeen wax bu dee dëgg la yàlla na ma bu dul dëgg yàlla na leen yàlla jégal ndax ñëpp leen ci dëgg yéen bu dee dëgg la yàlla na ma yàlla jégal bu dul na leen yàlla jégal in kuntum saadiqina gafarallahu lii wa in kuntum kaasibina yaxfirullahu lakum ba tey loolu laa jublu wax ni bokk na ci contrôle taw lan noonu di jëw di ko wax ni nga bàyyi xel ba xam dëgg loolu dëgg bu dee dëgg la nga jéem mu dañ bu dul dëgg la nga ñaan leen ak njëgal ñoom yàlla yàlla ñu njëgal ndax ginnaaw dañuy fen fen baax boo demee nag ba contrôler sa bopp nga teg ci nag di contrôler nit ñi na leen di contrôler yi mooy du jàggeen da ngay lu ñutu seen i ñaaw ñaaw mbaa dara waaye da gëstu yu rafet ya ñuy def jéem koo adopté lépp loo ci manqué nga jël nga mottali ko ko ci ñoom dañuy def ñëpp di leen ko xase naan di dëgg nangam du dëgg it nga xool ba xam du dëgg it nga xam ko ci ñoom jéem ko moytu waaye nag ànd nag nga suturaale leen ko kon contrôler nit ñi la muy tekki mooy nga xam lañuy def ci lu baax nga jéem koo roy xam la ñuy def ci ay safaan nga jéem ko moytu ba noppi di leen suturaal di ci boole loolu mooy cër bi su nit ki war a cëroo ci euh, turu di al muhaymin ci ñu ko imam xasali waxee saait xawaa day wax ni nit ki ba tey bu fekkee suñu borom daf ko teg ci béréb boo xam ni dafa yilif dara moo xam dafa yilif état wala mu yilif ak euh, ida benn direction mbaa mu yilif euh, ak ONG mbaa mu yilif euh, ab fondation lu mu mën a yilif rek nga xam daal kilifa rek war nay contrôler nit ñi di contrôler di dox jëflante ñoom ci wàllu politique politique u àdduna ba seen mbir àddina mën a jàll waaye muy contrôler seen diine it ngir seen alaaxira mën a jàll maanaam na na leen di lijjanti ci lépp daal nay lijjanti seen mbiri àddina lu ca yàlla mu jéem ko kem kàttanam waaye nay lijjanti seen mbiri diine lépp lu leen di pousse war leen may ngërëmul yàlla mu di ca taxaw ñu sonn foofu ba tey euh, nit ki war na ci góorgóorlu kem kàttanam la ca des it mooy muy wattoo xotti ay sutura la muy xam ci nit ñi ci ci yu dul yi mu di ko suturaal ni ko suñ borom suturaale ay mbiram ay ayibam ndax yàlla kat li feeñ ak li nëbbu lépp la xam ku ne it la nga nekk bu dee ak njaaxum la koo làqutu ñépp di ko di ko defit suñ borom mi ngi jàkkaarloo yow te teewul mu suturaal la ba am na ci xadisu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam xam ne euh, dafa wax ne képp ku yàlla régleen teg yow danga àl ko soxna Aïcha e ni ko waaw du yàlla moo fa amma man utiya kitaabahu bi yaminihi fa sawfa yuxaasabu xisaaban yasiran yonent ni ko loolu xardu la xardu nag mooy sunu borom mën naa woo jaamam bi ba ñu mu sàngee ko mbalaanum sutura won ko yamu daan def ci noona ni ko yaa defoon nangam mu ni ko waaw wax dëgg maa ko mu ni ko nangam yaa ko defoon bi sàngam mu ni ko wax dëgg maa ko defoon ba mu demee ba jàpp ni kon day alku ndax nii ko boromam leerale bi suñu borom dana ko ni ni ma la suturaale woon ci àdduna noonu laa la suturaale ci àllaaxira jéggal naa demal kon nit ki na cëroo cëru lu mu mën a xam ci nit ñi ci ay euh, njaaxum mu suturaal kon jikkowoo turoow yi bëgg nañ ko ci képp ku koy jàng di sutural nit ñi seeni awra ni sëriñ bi jàngale ni wa in absarat aynaaka yaa aynaaka ayban faqul laha fala tabsuri yaa aynu linnaasi aynu saa boo demee ba say bët gis ayib bi jàmbur nee ko bët te ngaa bañ xool ndax ni ñi di am nañu ay ayib te lu ni lii nga gis mën naa am lu ko ëpp nag ci yow naka noonu bu saw làmmiñ na de tudd euh, nee ko euh, fa indaka awraatun walinnaasi alsun na nga xam ni am nga ay awra te nit ñi am nañu ay làmmiñ yu ko mën waxee kon loolu yi moom dañuy jàngate ci turu almuhaymin di ñaan suñu borom mu defal ñu ak dégg ak topp asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. Amen رمضان